maa ko wuutalee lii wala fii ngana yonent bi yàlla nga ko woo ci kaw asamaan yi juróom-ñaar diyaaleef ak moom Moussa yàlla nga ko woo ci tóoru Seyna yi diyaaleek moom yonent yàlla Yunus yàlla nga ko woo ca biiru jën wa ca lëggu géej ga ci biir suuf sa foofu la yàlla waxee ak moom ana fan la fi yàlla nekk kon ndax ma nga ca suuf sa ci géej ga am ndax ma nga ca biiru jën yaam ndax ma nga ca montagne tóoru Sina ndax man ci asamaani juróom-ñaar ah wolof de yàlla mi ma tiim lay wax daf ci jaaxle rek comme xamut fu mu nekk mu ne yàlla mi ma tiim ndax boo ne mi ma tiim kon bàyyi nga xel ne xam na sa zahir ak sa baatin bàyyi nga xel ne itam kawe na moo tax nga ne yàlla mi ma tiim ndax da nga xamut ana fan nga koy qualifié wante yàlla amul makkaan lii lii du jàpp yàlla laa zamaana wala makkaan moo tax ki ñu doon jàngal doon wax ne mustahilun fi llahi aynun wa kayfun wa zamaanu amri wa ay istihaal mu ne jomb na ci yàlla kañ loolu mu jàpp waxtu wala temps ak kayf mooy comment comment comment amut ci yàlla nu mu melee nan la mel nu mu toll amut aynun wa kayfun wa zamaanun makkaan it amu ko yàlla amul benn makkaan lié lié mënta jàpp yàlla gis nga nit ki nit li ko sonal li ko sonal ba muy jaamu xëram dafa yaakaaroon ne yàlla mën nañ ko localiser ci benn local bu ñu demee fekk ko fa lii moo sonaloon nit ah bi mu gëstoo ak ba jotut yàlla loolu moo indi ki jaamu xëram jaamu xëram eh, ki ñàkk solo itam comme xalaat na xalaat xaatiram mënut jàpp fan la yàlla nekk ak nu mu nekkee mu daal di seet benn waay ne xaaral ma seet sëriñ Konte comme moom moom ma gën a xam yàlla moom ma ci gën a féete xaaral ma sës ci moom man daal su ma xalaatee rek ci yow laay yem yow yaay seet nooy def ak yàlla maanaam nga wut keneen rek wéer ko ko jël say mbir yëpp teg ko ko ndax yow ku doye di nga yow euh, euh, question lâcheté la daal tayal nga jëfandikoo sa xaatar ak sa xalaat pour jëmee ko ci yàlla Eh, tayal nga itam yéegal sa bopp ci leeru yàlla yi ak xalaat bi nga jël kenn wéer ko ko rek ni kii mooy sama la man bu ma ñëwee ci moom ma noppalu loolu nag question lâcheté rek la waaye nit ku nekk waroon nga fexe ba sa digg ak sa borom mu ñàkk am diggante boromam bi nekkoo ko gannaaw bi mu dindee kiiraay li nekkoo léegi nag jox naa la juróom fukki julli boo demee na ko jox nit ñi nañu li yàlla juróom fukki julli bés bu nekk ak guddi gu ne mu ne waaw sama borom dégg naa topp naa mu daldi di wëññeeku ñëw ci Moussa Moussa ne ko waaw yow nag sa borom ñaati julli la la jox mu ne juróom fukk mu ne juróom fukk mënoo ko dellul mu wàññiku mu ne ma dellu si ne sama borom wàññiku mu ne wàññi naa ci fukk ma ñëw Moussa ñaata mu ne ñeent fukk mu ne ko dellul mu wàññi ko ma ne sama borom wàññi ko mu ne wàññi naa ci fukk mu ne ma dellu si Moussa ne ko doo ko man demal mu wàññi mu ne ma dem mu ne wàññi naa ci fukk ma dellu si Moussa ne ma ne doo ko man demal mu wàññi ko mu ne ma dem mu wàññi ci fukk mu ne ma ñëw Moussa ne ma ma ne la doo ko man sa xeet duñ ko man demal mu wàññi ko mu ne ma dellu si sama borom ne wàññil naa la ci juróom ma Musa ci musa ne ma da nga du deg man bani israila ñaari julli rek rek rek la amon. jox len ko rek mu tëma am na ci ñu lankane duñ ko julli yow juromi julli bari na mu ne ah, musa amna am ci delu ci sama borom nan ko wañil ma bay rek ma dem ak juromi ak nu mel bal rek ma dem ak ñom jox ko xeet wi mu ne mu deg pey ba ngay wax ci kaw ne ko inna laka bi khamsi khamsin am daytu faridati wa xafaftu an ibadi inna laka bi ajil xamsi xamsin mu ne mu dégg péeb yàlla baa ngi naan man wéele naa samay farat man woyefal naa ci jaam yi juróomi julli yooyu boo ko defee normal am nga yoolab juróom fukki julli loolu mooy juróomi julli yi nga xam ne moom la ñu nekkee waaye ba léegi saalixuuna yi ak saalixaat yi ba léegi jigéen ñu yiw ñi ak góor ñu yiw ñi ñu ngi julli juróom fukki julli yooyu ndax balaa ñu jël tisbaar danañu jiital ay raka bu ñu jëlee tisbaar ba sottal danañ ci teg ay raka balaa ñu julli takkusaan danañu jiital ay raka door a julli takkusaan bu ñu jullee timis danañ ci teg ay raka door a naafile guddi balaa ñu julli gee danañ jiital ay raka bu ñu jullee gee danañ ci teg naafila ak witr ba legi am na ñoo xam ne fukki julli yoyu dañ koy matal ndax seen ak baax lool nak coobare lay doon waye juróom yi euh dañ ci am yoonab juróom fukku da ben bu nek fukku la ci yalla fay xam nga yalla dafa jël ben barem jokk malaaka yi ne ko toog leen toppa jaam yi euh, bu ngeen fayee leen nii benn na ngeen ko multiplier par dix ngeen fay benn bu ne fukk ñu ñu jël loola ñu ne yàlla lépp la mu ne koor bokku ci koor moom ah mu ne koor moom lu tax bokku ci yàlla ne bu leen laal koor teguma ko ci loxol malaaka benn malaaka du ko bind yàlla ne man lañ ko defal man rek maa koy fay man lañ xam nga mën ngaa julli te julli loo yàlla ndax da ngay julli pour ni ñaa ngi lay xool ñu di la gis waaye woor yàlla rek nga ko mën a defal ndax bu la neexee nga nëbb lekk naan te ne damaa woor kon ki war rek dëgg la kon yàlla ne man maa ko moom mu lii wa ana ajzi bi koor man yàlla maa ko moom man rek maa koy fay nag kooku du topp berem barem boobu nga xam ne mooy benn fukk ak benn ñaar fukk kooku moom man yàlla maa koy fay ku toll ni yàlla nag ni mu baaxee ak ni mu tabee ak ni mu barilee lu mu jëlal boppam ne moo koy fay kon ku woor war ngaa bëri yaakaar ci sa borom te genn koor rek nit ki bu ko wooroon ci dundam war naa am yaakaar bu baax ne dina am aljana ndax ku toll ni yàlla ne kenn duma fayal may fayal sama bopp xam nga ne ku yàlla fayal loola dara du du la manquéti nii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam rañaanee nii la yéegee ba dem ci boromam maa ngi woon ci yéegi nag ci ab ay béréb yoo xam ne fii lañ ko joxee julli juróom yi ma lay wax loolu léegi nag ma ñëw ci munaajaat ba mu doon def ak yàlla na mu doon deyaaleeg yàlla dama la bëgg a indil nag lenn ci wax yi nga xam ne rot na fa te ay ulama wa ak borom xam-xam indi ko ndax yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu reñane ndax gis na yàlla koku question la amna ci ulama yi soxnaam Aïcha nee na yonent bi gisut yàlla nee man hadathakum anna muhammad raa rabbahu faqad kadhab ku la hadisal ne yonent bi gis na yàlla fen na lii mooy waxee Aïcha radiallahu anha wante tabaraani jële na ci ibnu abbas mu génn ci awsat ci xadis boo xam ne wéeruwaay bu dëgër la muy wax ne raa muhammadun rabbahu marratayn gis na boromam dëgg dëggi boromam ñaari yoon mu ne benn bi gis na ko bi nga xam ne boobu la ko rañaane waaye ca sidratul muntaha waaye gisaat na ko itam ci waxtu wi nga xam ne mu ngi wàccee ci moom alquran laqad ra'aahu nazlatan uxra inda sidratil muntaha kon lolu moy riwaya bi nga xamne tabarani mom la genné ne na gis na borom euh lenn ci ulamaawu xadis ne nañu yàlla mo jaglel muhammad mu qol jëm ci borom jaglel musa mu wax ak mom jal jaglel Ibrahim mu nek dib xaritam kon al kalam li musa wal xullatu li Ibrahim wa nazaru li muhammad wax ji may wax بودلو تي تيري بنان فتح الباري شرح صحيح البخاري تا قاجو جرم نيارل با نون غو كفاي فك عبد الله بن عباس رضي الله عنه نانا راى محمد ربه نانا يوننتي بي جسنا برمم عكرمتا دغينا تي ابن عباس ني منان كو بم نكو محمد جسنا برمم من نخ يالله وخو تال قران لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار ndax yàlla waxu ne moom bët yi duñu agsi ci moom moom mooy agsi ci gët yi mu ne ah kay waaye danga nga war a xam lu idraak idraak loolu mooy al ihaata egsi ci yàlla ba léem ko ba peeg léppam loolu ma ne su ko def yàlla waaye du rekk ne ndax xool na ko ak i gëtëm mu ne ku way xaka zalika ida tajalla bi nuurihi lazi huwa nuuruhu boo gisee mu ne laa tudriku labsaaru moy yàlla ak jëmum ak ak leeram bu defé te jëlli bëtt du ko àtt nak mën xol xam nga bëti xol rek gëti xool a koy gis waye bëtt yi mënu ko gis liko waral modi ne al albasaru mahdudun wallahu mutlaqun fal mahdudu la yudriku al mutlaqa gis c'est limité xol c'est limité de telle sorte que bu guddi won tay amul jënt amul weer amul bidiw amul lamp mu leendum kërës bo xullé bu baax do gis dara kon bët gis ci leeru jàmbur lay gis li gis mooy xol mooy gis waaye bët daal du gis comme ni ko alquran waxee moo tax bët du selmaxa selmaxa ci xol lay nekk la tamal absaaru walakin tamal qulubu alati fi sudur bët du selmaxa xol bi mooy selmaxa moom loolu moo tax imaamu ali radiallahu anhu فالدي وخوني من رأيت ربي بعين قلبي جسنا يلا جسم قتي قل من وعي بمكو جسي جسم قتي قل دفما وورني مملا مملا فقلت لا شك أنت أنت كونك آه، ابن عباس رأى ربه مرتين إمام ابن حجر نينا المراد بالآية موي نفي الإحاطة به عند رؤياه لا نفي أصل رؤيا الإمام القرطبي نينا دال ابن حجر نينا لن يدق mooy léem lépp yàlla waaye du gis ko moom kenn dàq damay wax gars yi ne gis lu dul yàlla moo yéemu waaye gis yàlla yéemuwut gis lu dul yàlla nag mooy yéemu xam nga lu tax muy yéemu lu dul yàlla comme nekkut nga gis loo amut loolu kay moo war nekk kéemaan waaye li nga xam ne moom rek moo am gis ko nekkatul kéemaan xanaa kay gisin waak yow mii gis yaay kan ak nan la lan loolu mooy doy waar waaye ruyatul maadum ruyatul maadum loolu mooy kéemaan وهي رؤية الموجود كوكو كي مهم أمنا ابن عاشر إن لم تكن تراه ابن عاشر آه، الفق المغربي من بو في نكتل رك نجسكو سيد الحاج مالك ننا ولولا سكون العالمين لغيره رأوه عيانا ولله قريب وفكون إن نجد من تلنا لدود يلا دنجس يلا نه يلا كجلا وهي قال بين قال لدود يلا ما تخ ما تخ ومن شدة الظهور خفا lu feeñ trop dafay nëbbu ndax feeñ gu ëpp daal ak nëbbu rek lay daal di indi ndax it day day feeñ foo ko foogut nga di ko xool fu mu nekkut su ko defee fu mu nekk doo ko fa gis loolu la imaamul qurtubi wax ne nafyul idraaki laa yunaafi ruya mu ne idraak buñ ko dàqee loolu laa yunaafi ruya loolu euh, na ba tey moom qurtubi ne gis yàlla mu ne lu mën a am la دع القرآن جنان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أمن أي قركم ينتخ يوقم ندني قال برمبي أه، قلت بيني إذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين بالنسبة للمرأة لولا نقول جو قلت له القلت بيني بود دعاني نجزي الله جل قرأت لولا نبتش دبو أمور كن كوكويدي كو mune bu dagane ñu gis yàlla ci alakhirah dana dagan ñu gis ko ci adina ndax ñaari waxtu yi adina ak alakhirah ñoy yam ci ki ñuy gis bi nisbati lil mar'a ki ñuy xol adina ak alakhirah yam ci mom kon rek bu dagane ñu gis ko fele rek dana dagan ñu gis ko fi lool la al qurtubi wax ci tafsiram qaadi iyaat nee na inna ru'yatallahi jaizun aqlan nee gis yàlla lu dagan la lu jaadu la am xel man nako jàpp الحسن رضي الله عنه نينا موم دا نجد گين عليه الصلاه والسلام جيسنا بروما الامام ابن خزيمه واخنا سي صحيح يلي عروه ابن الزبير دي سخال لولو نكا نونو كعب الاحبار دوغنا لولو الامام الزهري دوغنا نجسنا ني معمر كي لين دغرل سي موي الامام الشعراني موغي بوك سي كين علماء آه، تصوف الإمام الشعراني ولا اشعري واخنا لولو imaamul ashari dëgëral na ko lool naka noonu imaamu nasaayi génne na ko ci saxi ci isnaad boo xam ne bu wér la alxaakim itam wéral na ko ca mustadrak saxal ak loolu nag ak jawaasu ruya imam muslim saxal na ko ci tariqu al aliya jële ko ci ibnu abbas génne na ko itam ku naan ibnu mardawi jële ci atta ibnu yasaar saxal gis gi ne wan mën naa am ñi dàq nag gis gi ci bët mooy Aïcha radiallahu anha waaye nee na moom it dàq naa ko ci bët waaye saxal naa ko ne mën naa am ci xol Abu Darin al Ghifari moom moo laajoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw bi la yàlla rañaanee nag lan nga fa gis mu ne yonent bi ne ko nuurun arahu aw raaytu nuuran mu ne ak leer laa gis wala gis naa ak leer ndax yàlla leer na du ne yàlla mooy leeral déedéet yàlla ci boppam moo digleer leer alquran allahu nuuru samawaati waxut ne yàlla munawiru samawaati waxut ne yàlla moo leeral asamaan déedéet allahu nuuru samawaati yàlla mooy leeru asamaan comme mooy leer gi nag mooy jëmma jë moo tax yeneen bi ne nuurun araahu aw raaytu nuuran ak leer gis naa ko wala ak leer laa wal waaqe lan mooy réalité mooy gis na boromam te sikk nekku ci كي ندون جانغال ديفنا كو تي بايت ان راى ربه حقا بعين وسوره جزنا بروموم تي دغ دغ جيمجا اك ملوكان وي سيك نيكو تي نان لا جيسه يالا فان لا كو جيسه جيسنا كو تي فو خامني جيس امو تي فو خامني بيرب اموفا فا تي فو خامني جيس تي بوبام امو mu ne ci anam googu la boo ko mënee xam googu la boo ko mënul xam googu la yegg na foo xam ne yegg amu fa laa wasila wala mawsula laa ruyata wala almari wala ra'i foofu nag mooy mbir mi nag waaw foofu la ñëppay sànkoo nag ndax am nañu ko mën a dégg jot am nañu ko mënul jot Aïcha ulamaul xadis ne nañ lu tax Aïcha ne yonent loolu simple Aïcha ñu ngi ko may yonent bi mu ngi am juróom-ñeenti at ñu ngi ko ko jébbal ci juróom-ñeenti at jox ko ko nit jigéen ju am juróom-ñeenti at diggu ne ndax kooku kooku mën nga ko wax gis naa yàlla kooku du xam loolu loolu moo tax ba mu ne gis nga yàlla mu ne ko déedéet waaye naa Abbas ma nekkoon mag dafa ne ko waaw mu ne kon bi doon chaque Aïcha waxtu woowu dafa tuuti mënu la attan ne ko gis naa yàlla moo tax yonent bi mu ko ko laajee hal raayt rabbaka qaala la waaye ibnu abbas radiallahu an moom biñ ko laajee daf ne gis naa sama borom ca dëgg-dëgg kon rañaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën nañ ci tiire ci jeexte xadis bi ak gëstu bi mën nañ ci génne lu bare bare liñ ci njëkk génne moo di ne la miracle lan moo koy tax a ñëw maanaa mucjisa la maanaa euh, kéemaan la euh, lu xar baax la euh, kéemaan nag <coughs> mooy lan mbir mu yéemu lool bu jógee ci ab kàccoor loola ak njabar la tudd ngi mel ni waa ji jabar bay jàpp jaan yi du ko matt ak yi demee ni ki noonu mbir mu yéemu lool bu jógee ci kàccoor ak njabar la tudd mbir mu yéemu lool bu jógee ci ku ñu yónneegut kooku irhaas la tudd fondement la waaye mbir mu yéemu lool bu jógee ci koo xam ne yàlla ko tànn jox ko mission yónni ko loolu mooy miracle loolu lañuy ñuy tuddee kéemaan wala mujiza kon li ñuy njëkk jàpp di ko tiire ci leçon boobu moo di ne kon rañaanu yonent bi ak yéeg gi miracle la kéemaan la goo xam ne dafa lott la ñëpp te kenn mënu ko am ci sàkku ko kenn mënul góorgóorlu itam ba am miracle bu mel ni bi mu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam beneen bi moo di ne miracle ay yonent lañ koy jox buñ ko joxee ku duhut yonent tuddatul miracle waxna la ne ak njabaral wante yonenti bu ne waxtu wiñ lay yoni la xewoon ci jamono dañ la cey jox lu upp lola ndax ñu xamne def nga miracle yàlla mo lay yoni par exemple yonenti yàlla musa Moïse bañ ko yónnee fekk na bobu Égypte ak njabar rek mo fa dox ba legi nak ñoko dakk ci adina ci kon bu musa ñewé war na indi ci njabar lu kenn mënut gaay di ndan njabar di ñeengo di def ay jaan ñuy dox musa Moussa wu yett bu ko sanné mu soppaliku jaan lek seen jaan ya lolu la parce que lolu dox fo xam war ko ci jox lu xar baax lu ëpp lañ xamam yónte ali Isa buñ ko yonne xam nga lu mu fekkon ci adina xam-xam science ak docteur mo xewon yalla ñew jox ko muy dekkal ku dee kooku mën docteur yi ah ñu xam ne lii nag ëpp na médecine kon kii yàlla daf ko yónni moo tax moo taxoon yàlla jox ko loola ak muy jël ban bu ko tabaxee sànni ko mu soppeeku picc dal di naaw maanaam day bind di ci def ruuxu ci kàttanu yàlla kon Isa moom itam loolu taxoon ñu joxoon ko miracle boobule euh, kon nag mu ngi mel nii képp koo xam ne yàlla yónni na ko da koy jox kéemaan bu lottaloo nit yi jamonoom ya ndax ñu xamee ci ne kii yàllaa ko yónni kon nag lépp li nga xam ne waa Makka amoon nañ ko walla xamoon nañ ko wala mënoon nañ koo def ci xeeti tukki ak seen gëlëm ya la muy gaaw gaaw war ay gëlëm di ko dawal ay weer gëlëm moom safinatu saxraa la ndax mën naa toog weeru lëmm du naan dara ndox mi nekk ci biir bi du jeex kon moom lañ daan war di tukki mu gaaw lool kon nag tukki ak i xaafila ak i karawaan yuy tukki moo xewoon yàlla jox ko karawaan boo xam ne ci génn guddi jóge na Makka dem ba Palestine muy Jérusalem joge fa dem ci asmani jurom ñaar delu ci te beut setagul ci genn guddi kon lolu nekana na miracle kon kat yi ak kat yi ak ñu gaaw ñi kon amulen li, kon li bu ko ko joxe da fay tek rek ne ki yalla da koy yoni motax mu man li nga xamne kenn ci yeen munuko kon lolu man nga ko tiire mu nek ay leçon benen bi modi ne nit nek le yalla dëgëral rek ci ñeme luñ la mën a teg ci naqar aku métit bés dana ñëw yàlla dana ko faj ndax moom desal gi ko waa Màkka desal géccal ko géccal gi ko waa desal géccal ko yàlla wuutale na ko ko waa malaw laala asamaane juróom-ñaar woo ko ngan tatagal ko kon nag ku nekk ci dëgg sax ca te dëgër te dëgg rek mooy mujj ndax wala aqibatu lil muttaqin Euh, beneen bi ci li nga xam ne moom lañuy ñuy tiré ci ay leçon ci lii moo di ndek yàlla fu nekk la nekk ndax allazi naaja wa masjidu lu xuutu ki doon deyaleg yàlla te jàkk ja nekk jën wa ki doon deyaleg yàlla te jàkk ja nekk montagne turu Sinaay ku doon deyaleg yàlla naan ini daayibun ila rabbi sayadini muy Ibrahima mu di àllu Irak ba te ku ci nekk deyaale nga ak yàlla ku ci nekk janoo nga ak sa borom ci béréb boobu mu ne loolu yëpp da nga ciy jëme jëlee ne yàlla kon dafa amul makkaan yàlla dafa amul makaan logiquement mën nañ koo xam ndax lu tax benn lié yàlla amul lié mooy képp ko xool teg ko bët séen ko dafa nekk ci béréb boo xam ne béréb baa ko ëpp bu fekkoon ne tànt bi ëpput ñu boo boo boo xoolee doo ñu mën a gis buñ ko feesoon dell boo xoolee doo gis kenn kon nag benn béréb boo xam ne moo ëpp yàlla ba yàlla man faa feeñ ba nga mën koo séen fan la amut inna allaha waasiun alim yàlla ku yaatu la comme ni ko alquran tuddee kon loolu itam mën nga ko faa euh, jëlee kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii lay yégee ba sidratul muntaha ni lay yéegee ba dem qaaba qawsayni aw adna ndax buñ ne yonent bi jege na yàlla comme qaaba qawsayni comme xala ak ñaari xocci la wala boog lu ko gën a jege lu ko gën a jege mooy kenn ke fi nekk keneen ki nekk fi ni la daje ak boromam ci pey bu sell bi ni la ko yàlla wax yu li nga xam ne moom la ko wax yu ni la dellusee mag léegi nag dellu si na mag dellu si na mag bët sa tagul ni ñu yeewu rek mu ne man dey léegi yàlla rañaane na biig dem naa baytul maqdis ci guddi gi waa Màkka ne kawtéef Abu Jahl ne ko ma ndax loolu ñeme nga ma woor waa dëkk bi nga wax ko mu ne waaw mu daal di woor waa dëkk bi yépp ne ko Muhammad waxal la nga waxoon mu ne biig jóge naa Màkka dem naa baytul maqdis gis naa fa yonent yëpp julli naa fa dellu si naa balaa ba deset ñu ne dégg ngeen yéen a wax lii dégg ngeen li mu wax de ñu ne ko waaw mu ne ku ko gëm ñëpp ne ah man de ah loolu day wax rek ah loolu day wax rek ñu ne loolu de Babacar fi dàq gëm waaye du ko gëm de ñu ne baabakar da nga gëm nga wax jooju mu ne wallaahi man kay su ma ca tegaloon ne dem naa ci asamaani juróom-ñaar itam man ma gëm ko ku lay indil xibaar bu jógee ci asamaan bu jógee ci yàlla nga di ko gëm kooku koy bu ne dem naa ci kaw suuf dama koy gëm yonent bi ne Babacar noonu la saxee dem naa it ci kaw asamaani juróom-ñaar keroog la ko yonent bi tuddee ne yow yaay saddiq yow yaay Aboubacar ni saddiq yow yaay dëgg laa koon bi yow yaay ki nga xam ne waxtu wu nekk lu yonent bi indi ci kéemtaan daa ko dëggal nii la yonent bi dellusee nii la sampee ndëndam ci kaw Quraysh lancé defi ci seen kanam ñu laaj ko nan la jàkk ji mel mu waxal leen ko te bayiwu ci dara bayiwul benn fenêtre ba ñu laajee ñi nga xam ne ñoo dëkkoon baytul maqdis laaj nañ burab dëkk bi ne ko waaw màkk day muhammad ibni abdullahi ne na ñëw na baytul maqdis ci guddi sàngam ci weer sàngam ci dat sàngam ñibbi na ci guddi gi xanaa jàkk ji tëju leen ko woon mu ne ñun kay man kay keroog dama tëj bunt yépp ba mu des benn bunt rekk mu tëma ma tëj tëj bunt bi lànk rekk ne du tëju tëj naa bunt yépp ba mu des benn bunt mënuma koo tëj dem naa ba woyi sax euh, techniciens yi nga xam ne ñoo tëggoon bunt bi ñoo ko defaroon ñu dimbale ma maa ñoom pour ñu tëj benn bunt bi mënuñu koo tëj ba bunt boobu noonu laa ko bàyyee ñu ne kon nag bu waxee ne dugg na ci Eh, te dajjiwu ko kon loolu la bunt boobu dafa tëjuwut kooku doon garde baytul maqdis ne am na leneen lu ma ci yokk am na benn jaaru jaaru bi ma nga foofale jaaru beñ la lu mel ni daaj la mu ne dafa daanaka dafa suulu woon mais jaaru ba sulleeku na génn na ci bitti te jaaru boobu mësuñ cee yeew lu mooy buraaq buraaq rekk lañ ci mës a yeew ci ab yonent rek nag mooy war buraaq te fekk naa jaaru ba génn na ci bitti te gis naa itam eh, ay tànki lu mel ni tànki fas gis naa ko fa loolu gis naa ko ci jàkk ja loolu ñooñu nga xam ne gëmuñ yàlla te nekkoon ay chrétien doon garder Jérusalem ñoom ñooñu indil li nga xam ne mooy kéemtaan googu nga xam ne yàlla jox na ko ab yonentam alayhi salaatu wasalaam kon mbokk yi ñuy déglu lii moo di reñaan lalee mooy yéegu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kii moo di yonent bi lii itam lañ ciy mën a tiire comme ay leçon déglu gi itam loolu lay jëriñ dafay yokk suñu gëm yàlla ñu xam ne kii ñu ànd ak kii yàlla yónni ci ñun nit la ko xam ne eh, ku rëy la nekkul nitu ordinaire bu fekkee mbindeef la itam nag waaye mbindeef la mu yàlla di di wax yu mbindeef la mu yàlla kawel mbindeef la moo xam ne yàlla réyal na ko mbindeef la moo xam ne yàlla yemalewu koog benn yonent mbindeef la moo xam ne yàlla tagg na aw làmmiñam nee na du wax mukk ay caaxaan mbindeef la mu yàlla tëgg na ay bëtam nee na maa saaxal basaru ma taxa mbindeef la mu yàlla tëgg na ab xolam nee na ko maa kadabal fuaadu ma raa mbindeef la moo xam ne yàlla tëgg na ay jikkoom nee na ko way naka la ala xuluqin azim sallallahu alayhi wa sallam yal na def ci nun dégg ak topp def ko ci yéen maa ngi ñaan yàlla borom tur yu yi ak melokaan yu rafet yi mu dimbale ñu dimbale leen ndax itam li tax ngeen tuddee seen mbir xaramay ni sharifay ni nekkul ay caaxaan barkeb xaramay ni sharifay ni yal na wàcc itam ci seen liggéey bi wàcc ci seen éyna yi wàcc ci seen yëngatu yi ak seen dal yi lépp li ngeen ci jublu yal na yàlla may leen ko ci barkeb bés bile ak ci barkeb koor gile ak ci barkeb reñaanam mile ak ci barkeb eh, alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne moom rek la yàlla wax ne ku ko topp yàlla nga topp moom rek la yàlla wax ne eh, ku ko roy am nga roy waay boo xam ne bu mat la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ah jërëjëf Alaaji Moussa Gueye ah, ñu ngi lay gërëmaat di doole ñaan yàlla xëcc sa ca kanam kanam kon ah, bokki wi teew waa xaramay ni sërifay ni ah, thème bi nga xam ne moom ngeen laajoon muy yéegu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ko asmaaw yi ak ah, tukki mi mu tukki diggante Makka ak Baytul Maqdis El Hadj Moussa Gueye taalal na ko ba lépp ruq-ruq yëpp dugg na ci génneel na ko faram-fàccee na la ko seen ah, kanam yëpp kon nag li ma waxoon rek ne woon ne eh, bu jeexalee débat dana am. waaye bind yónnee bind yónnee moom laa waxoon waaye bala ñu ca àgg dañuy jox uh, ñi nga xam ne ñoo organiser seen uh, uh, waxtaan wile di haramay ni sëriñ fay ni kàddu yi nga xam ne dañu koy jotalaat ak ñi fi ñi fi yebal kàddu yi ñuy joxe bu ñu yeggalee ñu door a ñëw ci laaj yi nga xam ne moo fi rot di ñaareelu conférence bi wala boog bu fekkee mën nañu dem julli dellusiwaat doo dugg ci yooyu ñu def ko ndax uh, am na ñu xam na ñu ngi commencé di xool seeni monto te uh, mënoon nañu dem ba ci ñetti waxtu waaye gannaaw ñu ngi jóg ñu wax ne kon ñu dem waaj julli bu ñu jullee ba yeggal ñu dellusiwaat ñi nga xam ne ñoo yor euh, ñooy borom waxtaan yi di xaramani sërifayni ñu mën a jotal seen kàddu yi ñu bëgg a jotalaat ñi nga xam ne dañ leen fay ebalit ñu mën a joxe kàddu yooyu la ñu doon ñëw nag ci laaj yi daal di euh, bu ñu jeexalee laaj yi nag daal di jeexal conférence bi ndax euh, jàkk jaa ngi xaar rajo Moussa Ndaw mu ngi jëm moom foog mu dellu moom ba parcelle. waaw waaye ñii dañuy àggale ko benn yoon rek laaj yu bëri ñu ñaan te saa yàkkat bi nañ jóg tisbaar ji dem na ba fa takkusaan di jot xanaa kay moom miy jàngale ji moom laaj ci yërëm rek moom man ñu doon ñu doon yërëm mooy ñu roote moom si ndax xam nga dëgg ñu dëgg dara ñu bëgg dara wax dëgg moom am na daje loolu moo tax nga ñu fii waaw ni ñim dem julli ci des waat ah oustaz oustaz Amadou li mën ngaa teg mën ngaa teg alquranul karim wala bandu sëñ bu fi nekkee nga teg ko ba ñu jullee pare des waat ci waxtaan nga Fatiha léegi nag muy laaj ndax jàng Fatiha gannaaw ñaan gu jeex walla jàng saatul Fatiha ana moo ci gën a rafet aji usman xam nga ñaan moom salatu ala nabi baax na ca ndax eh, moom ci boppam ak ñaan la te yàlla du ko delloo wante moom nag dañ koy mujjee maa bëgg wax ne Fatiha daal day tàmbali waaye duy mujj nit ñi ne dañ ko dañ ko tàmmoo su ñaanee ba pare am ku ne Fatiha li muy tekki mooy ñaan gi ubbeeku war na kenn tëju loolu ñak xam mo ci dugal nit ñi donc fatia dañ koy ubbé waye kenn du ko tejé su ñaanee ba def salatu ala nabi ba tej ko bu amé ku waxaat fatiha ubbi wat nañ ko nak kenn ñaanu ñu bako nona loolu kenn du ko def jërëjëf faraj musa ak na laaju ñaareelam mu ne bu fekkee ñaar dañuy xex ba ñom ñaar ñu dé ci xex ba lan moy sen nek sen pay ëlëk ànd ak ne na dafa bëgg nga leeral ko tegtal boobu la ci alquran wala ci sunna mën a ñaari nit ñu uh, xeex bare bareyante daal su fekkee ne ñaari jullit lañu bu ñu xeexee ba reyante wala ñoom ñëpp ñu dee yonent bi nee na ñaari jullit bu ñu xeexee ba reyante ñoom ñaar ñëpp dañuy dem safara te bi تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ñaari jullit bu ñu jàkkarloo yore ngànnaay xeex ba reyante ki ñu rey ak ki rey yépp mu ngi safara saaba yi ne ko waaw ki rey moom xam nañ lu tax mu dem safara ndax rey na jullit mais ki ñu rey nag lu ko yóbbu safara mu ne moom it dafa yéene woon rey morom ma yàllaa ko dogal jërëjëf laaj ñetteel mu ne ndax ndax takk takk téere dagan wala déet bu fekkee daggan na yan façon téere moo daggan a takk loolu moom laaj la boo xam ne day dem di dellusi rek waxtu wu ne nit ñi ñu ngi koy yittewoo léeg-léeg sax dama ciy tay la tontu ndax dama ragal ne wax ne daganut du tax ki ko téye bàyyi ko wax ne daggan na itam mën naa encouragé keneen ki ko defuloon def ko loolu moo tax ñaare damay wax ne dama ciy tontu rek li imaam Abdul Aziz bin Salah imaam Madina Munawara li mu ci tontu woon dafa waxoon ne bu fekkee ni jullit bi li mu takk ci alquran la bokk nee na ab jullit kenn sañu koo tere mu takk ab téereem nee bu bokkul ci alquran nag di ay béjjën ak pettaaw ak yeneen mu ne ko loolu ak njabar la te ak njabar dagganuta def dagganuta deflu nee na nag bu fekkee ne alquran li mu takk alquran la kenn terewu ko ko su boobaa bu mu dugg ak moom waaye bu mu dugg ak moom béréb bu am sobe su munta daw loolu nag day dal di nekk lu xaram ci moom ndax da koy takk yóbbu ko fa am sobe loolu rek la ci Cheikh Bun Saleh waxoon loolu rek laa ci wax. Ah, jërëjëf kii bind euh, kayit bi nag Aliou Ndong la tudd ne moo doon laaj loolu kii laajam bi muy laaj mooy atabaru ju lay laaj. mu ne ndax dagan na jigéen mu def ko def ko xam ne du jëkkëram daal waaw tabarruj duñ koy faral di def ci jëkkër tabarruj bu fekkee dégg euh, làkk wi kay duñ koy jëkkër tabarruj mooy sol col gu gàtt gu xat gu yaraax sa yaram nekk ci bitti nga génn ca mbedd ma dem ca marché ba loolu mooy tabarruj daganut kii dafay laaj ne lan lañ daa yonent bi nama ci affaire waaslu ci li mu tuddee alwaadul yi waaw comme suñu benn magu daara doon wax buñ nekkee ci koor am na yoo xam ne daf ko ci def daf ko du nangoo wax kon loolu xëy na bu koor weesoo daañ mën a lijjanti aslu lu mu doon ak yooyu jërëjëf ñaareel bi mu ne imam Busiri fan la juddoo ndax Iraq Iraq mooy cosaanam égyptien la ñette bi ne na ndax naafila dinañ ko dog nit kii la ba yàgg mu fàttali ko jullit farata ndax day wacce naafila ga wala boog day julli farata ba ba yàgg mu fàttali naafi ndax day dagg wala déet waaw euh, buy naafila ba yàgg mu fàttaliku farata day daal di dog naafile jëpp fekkee amoon na ñaar rakka musalmal def farate ba pare ñëw jokkaat ci ak euh, naafilaam amaa nag euh, farata moom fàttali ci naafila lu du dara di ndax ngay continuer sa farata rek kenn du bàyyi farata ngir naafila jërëjëf kii Cheikh Ndiaye la tudd nee day laaj lu tax yàlla wàcce rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni dafa war a laaj lu muy tekki waaye lu tax mu wàcce ko moom bu fekkoon lu muy tekki la mën nañ ko wax ne ko dafa bëgg a waxale rek xam la rek ne yàlla moo moom fii jant bi di fenkee ci noor ak ci nawet ak fi muy soyee ci nawet ak ci noor loolu lay tekki lu tax mu wàcce ko nag danañ waar doomu aadama ndax mu jub ndax mu xam. jërëjëf kii day laaj ne euh, buraax mi nga doon wax léegi mu ànd ak yonent bi ci tukki moomule bi mu ñibbisee ni buraax moom léegi lan mooy mbiram daal fa mu mujj. buraax dafa dellu fa mu jóge woon ndax balaa ko yonent bi laata war ma ngi fi woon te gisuñu ko woon. ci xëy bu mu nekkoon foofu lañ ko jëlee maanaam dafa dellu ci yàlla moom jóge woon bi ci yonent bi pare mu dellu ci yàlla moom jógee woon rek. nee na ndax euh, yonent euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci baytal maqdis ndax jiitee na jiitee na yonent ya mu ne yonent yi mu fa jiitee ndax mooy yi nga xam ne bi mu yégee ci kaw asamaan yi ñoom la fa fekk wala yeneen yonent la jiitee ci suuf. waaw euh, bu ñu xasee wax ñëpp ñoom fekk ci asamaan saak ñoom ci fekkut yëpp la. Euh, lim leen fekk ci asamaan si jiite leen ba pare ñu jiitu ko fa mu fekk leen fa loolooy tax mbir mi nekk miracle mu nekk kéemtaan kon yonent yépp la jiitee ñoom fekk ci asamaan saak ñoom fekkul yépp day laaj ne na àttee benn waaye buy julli ca gannaaw nekk fa moom kenn amul ko ko ñaareel ba julli gi jeex su fekkee ne sàppe yépp dafa euh, dañoo fees amul feneen fu mu nekk lu mooy ca gannaaw mu sos sàppe si ca gannaaw loola dara nekku ci bu fekkee nag ñun li nuy def la mooy sàkk benn béréb bu nekk ci bunt jàkk ja micro ba nekk fa bilaal ku ñu tuddee bilaal taxaw fa di jottali nit ñi sàppe fale kooku moom du am julli bu ñu jullee pare moom amul dara ndax yonent bi moo ne la salaata li mun faridin xalfa safi jërëjëf nee na laaju ñaareel bi mooy ku ñu raw ci julli mu ne taamul ci julli gi lu kabaru aramal bi mu kabaree mom rek bi mu agsee rek kabar rek lo rek li ci am ah, julli ga daal di jeex seulmal na ndax mom loolu mu ci am day jokk ci julli gi julli ga gi mu don topé wala nan lay doxé koku ab jotaay la ci am na kabaru xarmal kabar rek sëlmal da ngay kabar hak kabar fek ñu nga tok il bo kabaree xarmal nga tok jotaay bobu nga ci am kooka amut ci ben rakkaa waaye lam ci am mooy dootul defaat kabaru xarmal dootul liqaamaat dafay dal di wéy waaye day mel ni kuy julli moom daal. ah jërëjëf rajo Moussa Gueye. kii mu eh, kii day jël parole kii eh, Souleymane Souleymane Ndiaye am na ko muy jox parole. waaw bu fekkee dafa am kenn kuy jël parole mu ñëw jël ko. waaw président bi ne moom moo wax ne jabaram ji xaw ma. président jigéen ñi la. ah waaw waaw bisimilah bisimilah. Souleymane Ndiaye ñëwal jox parole kooku. waaw ah, c'est pas hmm. Hmm. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu oustaz ñu ngi leen rajo si seen kàddu askan wi moo am benn laaj rek bu la ko a laaj mu jëm ci bis bu mag boo xam ni ñu ngi koy waajal ci sunu kanam te mu war a nekk ci weeru koor wi muy laylatul xadar ngëneel yi nga xam ni warees na ko ci mën a ak li nga xam ne ñu ngi koy seet ci guddi googu ci liñ bëggoon nga dégg ñu ci tuuti waaw jërëjëf ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay waaye euh, leelatul qadri ay ngëneelam euh, matoon na sax waxtaan moom kenn moo tax du xëcc jotaay bu mel nii waaye dinaa la ci tënkal dara euh, bokk na ci ay ngëneelam yàlla nee na moo gën junney weer maanaam junney weer yoo xam ne nit ki da cee jaamu yàlla jaamu ko ci lailatul qadr mo gën jinné weer nak boo koy calcul tay juroom ñett fukki at lay doon ak uh, ay weer yu tek kon lailatul qadr bari na jëriñ ndax kom jaamu ci yalla ci genn guddi gogu waxuma mu ngi tollok jaamu yalla juroom ñett fukki at waye moko gën la alquran wax lailatul qadr khairun min alfi kon moo gën daal junney weer jaamu ci yàlla bi yàlla di wax naan man qaama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma taaxar ku naafila weeru koor yàlla dox ca doxe ca jéggal la lu jëkkoon ci say bakkaar ak lu mujjoon rawaate na nag ci laylatul qadri guddi la koo xam ne ko am daraja la dafa amoon ci bani israila koo xam ne dañu wax ne am na ñett fukki at di woor bëccëg ya di taxaw guddi ya di jaamu yalla saaba yi ñe ko ci ca nan ko ku day am may ku mëna taxaw di jaamu yalla lu toll ni juróom-ñett fukki at ko am nga ay ngeenel yalla nak ne yenen tibi su saaba yi lol lañu wax man nak dana len may genn guddi ci shahr ramadan ci weeru koor guddi googu jaamu ci yàlla moo gën jaamu yàlla junney eh, junney eh, fi weer maanaam junney weer nag mooy juróom-ñett fukkeet yoo xam ne teg na ay ay weer ah, laylatul qadri sikk nekkut ci ne ma ngi ci weeru koor werante am na ci gaa yi ñu ne fukk yu njëkk yi la ñu ne yu mujj yi la ñu ne yu ci digg bi la am na sax ñu dem ba naan day wër ci at mi waaye jooju wax na xaw naa ëpp li wóor daal ci weeru koor la nekk ndax yàlla dafa ne weer bi ma wàccee alquran ci la leelatul qadri nekk mu waxi ne leelatul qadri ci laa wàccee alquran mu waxaat ne euh, weeru koor ci laa wàccee alquran te ci leelatul qadri la te mu ngi ci weeru koor shahru ramadan alladi unzila fihi alquran mu waxaat ne laylatul qadri xayrun minal alfi shahrin eh, mbir mi kay fan la nekk la waaye ay ngëne la moom kenn amu ci benn sikk am nañu yaakaar ne sax bu ñuy woor weer bi yépp xëy na guddi googu lañ doon wut wante fan yi weer wi yépp lañ doon ut ndax yàlla moo ñu wax ne man shahida minkumu shahra falyasumhu képp kenn ci yéen koo xam ne traité weer yu fekk na ko fii na ko woor lépp yàlla moo ñu wax ni ay ayyaman maadudaat la kon koor gi yépp la ñu war a woor aman na dañuy nëbbalee xadri ci moom ndax ñu mën a màng koor gi yépp ah, li gën a bari ci fuqaaw yi daal dëppoo nañ ci ne laylatul qadri mu ngi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor ndax gis nañ ne yonent bi bu fukki fan yu mujj yi jotee daana yeewu di naafila di yeewaa këram naan jóg leen naafila daana yokk ak farloom daana yokk tabeem moo tax ñoo ñu wax nekkoon kon laylatul qadri ci fukki fan yu mujj yooyu la nekk am na hadis bu wax naan na ngeen ko wut bu ñu demee ba juróom ñaari fan des wala bu juróom desee wala bu ñett desee waaye li nga xam ne mooy mashuur daal mooy laylatul qadri ci weeru koor la nekk warul ci at mi li nekk mashhuur ba tey mooy li siiw mooy laylatul qadri mu ngi nekk ci fukki fan yu mujj ci weeru koor li nga xam ne mooy mashhuur ba tey te ubay ibnu kaab moo ko wax saaba yi ku nekk da ngaa solo vingt et unième jour vingt troisième jour vingt cinquième vingt septième kon ci fan yu tóol yee ca fukk yi mujjee ñoom ñëpp moom lañ wax waaye ubay ibnu kaab moom rek moo wax ne géej naa ci yàlla bi nga xam ne kenn du buur lu mooy moom xam naa gan guddi la xam naa ban bés la ma ngi ci weeru koor mooy guddi gi nga xam ne ba ñu yeewoo yonent baa ngi sujjóot ca ban ba ak ndox ma mooy guddi gi ñu yonent bi digaloon nu fanaan koo taxaw di ko jaamu yàlla nee na mooy xëytal weer muy ñaar fukk ak juróom benn ci guddi bët set di ñaar fukk ak juróom ñaar kon sahaba yi wax yépp kenn géñu ci ubay rek moo géñ te xam ngéñ lu mu doon ñu ne kon looloy dëgg ndax moo jël responsabilité géñ ne billahi lazi la ilaha illa huwa ma ngi ci weeru koor te mooy xëytal weer li nga xam ne mooy réalité nag moo di ne laylatul qadri anniversaire la mooy anniversaire u wàccug alquran al karim loolu kon sikka nekkul ci ne anniversaire u wàccug alquran mooy laylatul qadri teg te laylatul qadri mu ngi ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci guddi bët sët di ñaar fukk ak juróom ñaar anniversaire nag mënu la toxu anniversaire mënu la toxu loolu moo tax alamul islami wal arabi ñoom ñëpp dëppoo nañ ne laylatul qadri daal ma ngi ci weeru koor dëppoo nañu itam ne mooy xëytal weer ndax anniversaire wàccug alquran la te anniversaire ah kooku mënula toxu kon nak loolu rek la la bëggoon a jox tuti yobal nga yobale ko ci guddi gu mag gogu ñu tuddee retul qadri moy guddi gu am daraja wala guddi gu am teranga wala guddi gu mag ci wéru koor nga xam ne anniversaire wàccug alquranul karim alaykum waaw ki ki day benn laaj bo léegi lan fay laaj ne lan moy atteet ku woor dafa di nelaw ci beccëk ba yàgg mujj sa euh, dal euh, mu gént laal dara du dara waru ko ci yàqut ci kooram dara ndax dafay nelaw yégu ko loolu moo tax dara loolu du wàññi. jërëjëf kon euh, Cheikh Makhtar euh, Diouf euh, agsi na léegi ak délégation ñi ngi koy nuyu te di ko tatagal maanaam di ko saraka naan ko bismillah ah, léegi nag dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moo fi teewal ministre bi ak Fatou Euh, dañ ko jox kàddu waaye mu xaar tuuti kii teewal ministre bi jox kàddu ba yeggal ñu jox ko euh, kàddu gi dëggal moo jot dëggal dëggal dëggal